yàlla na la jàppale ba fa sama bëgg nga eggale ko fa nga eggaleel ko ko fa ñu ngi siyaare suñu Muntaxa Mbàkke bu baax ñu ngi nii di ànd ak sëriñ seex Diop mi nga xam ne mooy coordinateur mbooleem lu aju ci Mafatihul Bichri ak sëriñ Assane Mbaj ak sëriñ Mbay caam ak mbooleem sëñ Mbay Ñang ak mboolem taalibe yi nga xam ne ñoom la àndal sëriñ Maam Bousso nag boole ñoo ak sëriñ Moustapha Bousso ak rak ñuy wax sëñ Maam sëriñ Bousso ñi indi li nga xam ne moom la ñu participé ci laaju ci masque yi indi ko jëbal ko ci liggéeyub sëriñ tubaab bi di ñaan suñ boroom nag yal na yàlla doxe ci far mbooleem euh, mbas mi ci àddina sépp ñu ñëw nag teg ko ci sa loxo bëgg nga defal ñu ko ci bi sëriñ Touba bi ak ci bisam bii ñaan nag lor gi nga xam ne moom lañ ci jubloo jañ yàlla ñu yàlla jañal mbooleem lor yëpp ci àddina yëpp fu ab jullit nekk waa rawatina fu ab sénégalais waaye rawatina fu waa kër sëñ Touba nekk kon nag loolu lañ ne woon dañ ko jottali mi ngi toll ci ñaar fukki junni ak juróom-ñetti junni waaw mu ngi ci fukki junni ak juróom-ñett ñu ñu yemale ko ci eh, datu 18 eh, safar 18000 moom lañ ko moom lañ ko tolloole kon nag liggéey baa nga noonu non mil la waaw kon nag loolu lañ ko lool lañ wax ne ñu ko jottali ñu teg ko sa loxo yàlla na la yàlla defal li nga bëgg lépp mbàkke balla ci liggéey bi amin amin sëñ bi nee na sant na bu baax a baax nee na ngeen jottali ko cant yi ak ngërëm yi bu baax a baax ci waa daayira Afrique du Sud bépp muy Mafatihul Bichri amin amin amin amin amin amin ya rabbal